salaamaaleykum euh, mbokk internet yi Dakar Net euh, ñu ñëwaat ci suñu plateau hip hop solidarité coronavirus donc toujours ñu nekk ci même lancé bi nga xamante ni moom la ñu nekkoon mais cette phase yi dañu am benn euh, waaju nga xamante ni il est talentueux c'est un boo xamante ni il est en train d'enflammer le hip hop malheureusement dafa génn benn album mu ngi nekk ci benn groupe bu ñu doon wax daj dëpp connect benn connexion Euh, nekk en carrière solo pour le moment génn benn album tuddee ko Back to the Roots bi muy def promo promo bi après Covid 19 daal di am maa ngi lay ziar Mr Frouz Loodab. LG maa ngi lay ziar. naka affaire yi. waaw cool ah sant yàlla. yes nuyu euh, téléspectateur Dakar net nga nga nga nga kii. Euh, waaw waaw di ziar gars yëpp ah, waa ñëpp ñuy suivre Dakar net di suivre xam nga aussi émission bi. donc dina gaay man la Flouze Lou Dubs aka Mr Boom Bap aka Mr Boom Bap waaw artiste rappeur yes <laughs> bon pour pour nga résumer la gars yi gars yi lay staan te xamuñu la parce que xam naa ne ñi képp ku nekk ci hip hop bi xam na kan mooy Flouze Lou Dubs mais y a des yoo xamante ne dañuy suivre émission bi daf leen intéressé te invité bu ma am rek dañuy bëgg xam yow yaay yow yaay kan donc en résumé ba doon jox gars yi sa parcours la nag lan nga leen di andil waaw waaw pour résumer sama parcours Flouze mi commencé rap euh, mun nañ wax en 2008 laa commencé ci benn groupe. Mhm. Euh, Ziguinchor quoi laa commencé rap. 2008 mhm. euh, ñu continuer boobu ba léegi ba yàlla def en 2000. 12 2014. je veux dire euh, ma pare jàng université Ziguinchor parce que fa laa newoon di jàng. après ma dellu si Dakar quoi. am fi ñëwee ci laa rencontré daj dëpp les membres de daj dëpp. connexion bi après xam nga ñu def connexion bi. ñu génnee suñu premier projet en 2016. muy benn short player. Euh, donc après ça jot naa participer aussi ci yenn concours de la place yu fi am. Mhm. Euh, comme ay flow up. waaw bu euh, aussi j'ai participé à Citizen Match mooy concours bu Y'en a marre woon noonu quoi mm-hmm. donc participer naa si Citizen Match dem ba final affaire yooyu noonu mais bon c'était une occasion de me montrer aussi quoi mm-hmm. donc après ça aussi ci laa génne benn concept de vidéo freestyle bu ma tuddee barkeelu freestyle donc après ça donc laa commencé donc ma def benn après xama ça prix gars yi yëpp kontaan ci affaire bi quoi. et puis après ça ñu continuer nit ñi gën ma découvrir euh, à travers vidéo barkeelu yi. Mm-hmm. donc ba yàlla def euh, deux mille vingt bi le vingt deux février ma génnee sama premier projet. Mm-hmm. muy benn mixtape au passage. du album quoi du al du album mixtape la quoi. Uh-huh. donc euh, mu nekk projet boo xamante ne bon c'est un projet de quinze titres. Mm-hmm. donc euh, bon qui est disponible sur le marché quoi donc xam nga. mu ngi tudd Back to the Roots. waaw. Back to the Roots mu nekk projet bu nice boo xamante ni gars yi buñ ko. buñ ko dégloo consommé ko xam nañ ne. le gars il a bossé il a travaillé lan mooy euh, secret bi nga xamante ni moom nga liggéeyee album bi. waaw bon album bi pour dire vrai bon job naa ko deux ans durant presque. Hmm. presque deux ans laa ko job. Hmm. donc secret bu si nekk xam patience mi ngi si xam nga mhm. patience quoi xam nga mhm. euh, expérience endurance parce que ku la ne mi ngi commencé rab depuis 2008 ba 2020 mhm. mu door a génnee projet donc xam nga capital boobu noonu yëpp moo si nekk quoi expérience musique sama jaar-jaar et puis xam nga ba pare gëm-gëm bi ci nekk quoi d'accord donc loolu yëpp laa ci capitaliser ak aussi xam nga mu nekkoon thématique boo xamante ne vraiment ça me tenait à cœur pour def ko. d'accord parce que Sénégal soxla na ko jamono bu ñu toll. merci quoi. Eh, d'accord je vous rappelle que yéen a ngi ci euh, fii ci lëkkawu teen bi international fii la ñuy tourner euh, émission bi Flooz ñu ñëw tey ci li nga xamante ni mooy actualité dëkk bi muy Covid 19. nga xamante ni concept projet bi mooy hip hop solidarité Covid 19. nga génne sa album nekk di def promotion bi. pandémie bi am. ban impact nga ci am. bon am na impact ah, am na impact parce que boo xoolee pour dire vrai promo bu ci war munu munu munu ma ko def. promo mm-hmm. bu ci war parce que. boo dañu arrêté communication dañu arrêté lépp lépp lañu arrêté munoo def concert munoo def leneen munoo def leneen pour euh, bien vrai que xam y a d'autres moyens yu gars yi wax du ñu nekk di def mais ça peut pas remplacer les moyens mécanismes yu ñu daan def d'habitude quoi. Mhm. pour accompagner benn projet album wala mixtape. Mhm. donc am na impact bu mu am ci sama sortie bi quoi. Mhm. et pour dire vrai def nañ ci suñu xaalis. xam nga def nañ ci suñu xaalis. sant yàlla am na côté boo. xamante ne bon soo doon estimé coût bi nga xamante ni moo jox mixtape yëpp boo ko doon par estimation rek. nga doon wax gars yi euh, ñaat ban coût nga mën a joxe exactement. donc pour dire vrai nag mënu ma ko estimer côté xaalis nii parce que am na yenn côté yu bëri yoo xam ne. suñu xaalis demu si quoi. Mhm. donc am na yenn yoo xam ne des apports. Mhm. Euh, en nature xam nga. Mhm. na yenn partenaires yu si nekk ah, quoi. mais côté duplication et cetera mun nañu wax presque dugg nañu ay cinq cent mille ah mun na egg côté yooyu noonu quoi. mille. parce que am na yenn yoo xam ne ay boo defee ay bâche. Mhm. et jour conférence am nay dépense quoi. mais mun mun nañ ko évaluer mu dépasser loolu parce que am na yeneen moyen kii yoo xam ne bu ci duggoon. Mhm. parce que côté comme studio côté studio. Mhm. j'ai pas payé les enregistrements ak yooyu. parce que ban studio moo ko jox. Ruku Record. Ruku Record quoi moo ko jox. parce que Ruku Record ñoom. ils m'ont offert seen participation moo nekkoon ñu defal ma prise de voix mix ak mastering mhm. ma loolu boo ko naroon fay danga nga koy boolee ci budget bi quoi Didi Record jobu ci benn benn sound si Didi Record joom nañ ci mooy sound mu ma def ak OMG quoi Guinzel te cool donc xam nga joom nañ ci ñoom tam def seen participation xam nga donc xam nga am na impact quoi am na impact parce que tey jii nii yaakaaroon naa ci fu ma toll nii bu ma defoon promotion ak lu ci war xëy na peut-être ñeneen ak ñenoon jëndoon nañ sama album. Mhm. ba peut-être ma amoon ci xaalis quoi. Mhm. mais bu réew bi taxawee munoo def publicité ci yenn affaires yi munoo def concert. Mhm. munoo def leneen donc c'est un peu difficile quoi. et que euh, artiste nga en plein temps. waaw bon artiste la en plein temps. mais c'est vrai que j'ai fait des études pour mmh. dire vrai aussi mmh. des études mmh. j'ai un en informatique euh, une licence quoi universitaire en informatique. Mm -hmm. de gestion donc c' est vrai que eh, aw insertion professionnelle quoi mosuma mhm. liggéey ci entreprise parce que mhm. Sénégal fii dafa métti. Mhm. pour nga am fi liggéey. donc xam nga on profit aussi pour wax xamit état bi aussi nañ bàyyi xel aussi. gars yi nga xam ne ils ont leur diplôme et bëgg nañu liggéey quoi nañu. jàppale gars yi c'est très important état bi ñu gën a bàyyi xel jeunes yi nga xamante ne surtout man yéen ñi nga xamante ne yéen génn seen projet ci début 2020 bi rek pandémie bi daal di egsi parce que yéen su may wax les impacts euh, du hip hop man yéen laay gën a cité mooy comme ñu mel ni yow ak ay Deep Killer genre ainsi de suite donc tey jii euh, lan nga lan nga tey buñ la doon bu bu fekkee ne da nga am benn plan de riposte boo xamante ni bëggoon nga ko teg pour mën a soutenir sa bopp financièrement ak contexte bi ñu nekk nii lan ak lan si yan stratégie nga nekk. plan de riposte bon je sais pas parce que actuellement moom. pour dire vrai moom man euh, sant yàlla ko parce que maa ngi projet bi 22 février. Mm-hmm. te pratiquement Sénégal ñu ngi commencé ñu ngi am suñu premier cas ay mois de mars. côté yooyu. le 2 mars le 2 mars quoi. donc après ba ñu interdisé rassemblement yi c' était presque mi mars ak yooyu donc. amoon na benn genre temps bu ñu am jaay yenn affaire ñu le minimum quoi xam nga affaire yooyu noonu. Mm-hmm. maintenant par rapport ak tey contexte bi fu mu toll nii tey. Mm-hmm. donc on peut dire que peut-être vent en ligne bi lañu mën a focaliser wu quoi mhm, jaay en ligne mhm. wala jaay on on a créé d'autres supports aussi jaay par WhatsApp parce que am na nit yu bëri yoo xam ne ba ay Tamba ah, ay Tamba ay Saint-Louis gars yi woo nañ ma mhm. par WhatsApp la laa leen jaayee projet bi ñeneen par email affaire yooyu noonu quoi donc xam nga yooyu mooy peut-être kii contournement yoo mën a def yi nga yi nga mën a def pour mën a jéem ci sax voilà récolter ci dara quoi mais amoon nga amoon nga préparé woon nga benn plan de communication ak aussi tamit lu luy accompagner luy accompagner album bi comme lu mel ni mhm. concert et fan nga fan nga woon ci ci loolu si effectivement effectivement j'avais un pro un plan pour accompagner projet bi parce que le mois de d'avril même le 18 avril mhm. bëggoon nañ def benn concert MC mhm. MCI waaw maison des cultures urbaines mhm. bëggoon nañ de benn concert d' abord. Mhm. amoon na yeneen show quoi. Mhm. et puis je devais retourner à Ziguinchor xam nga d' abord. pour présenter le projet là-bas parce que je suis de Ziguinchor moom laa représenté ci gaal ci ci gaal seen ci rab bi. ak peut-être ci Kambaaw je peux dire PA eh, xam nga gars yi ñoom ñëpp maa ngi leen di <laughs> shout out. xam donc pour dire. amoon na lu ñu doon waaj quoi waroon naa dellu Zig. dem présenter fa projet bi def fa aussi showcase yooyu yëpp c'était dans les plan xam nga affaire bi daal dafa chamboulé lu bëri quoi mais xam nga toujours ba tey bon nu mun munti demee ñu ngi jéem a téye suñu bopp di di di di di xam di communiquer quoi. Mhm. comme on le via les réseaux sociaux instant yi moom xam nga sama page souvent ma def ay vidéo mhm. ngeen wane CD bi nag gars yi xam nga affaire bu ay. nii de ba gars yi bañ a fàtte bañ a fàtte bagage bañ a fàtte quoi. xam ne projet bi génnoon na. projet contexte bi rek moo waral mu kii nii quoi. c' est vrai c' est très important tout ce qu' on actuellement. Mhm. loolu rek lañ mën a def si sinon moom mooy loolu. effectivement mais tey euh, bu fekkoon ne am nga benn message boo xamante ni da nga ko bëggoon a jox les autorités yi nga xamante ni ñoom ñooy suivre cette émission. Mhm. pour que ñu jàppale ce genre gi nga xamante ni dañu def seen dañoo def le paquet ci seen projet génne ko. affaire bi am comme ni ñuy soutenir soutenir ñëpp ah. sur mhm. secteur yëpp parce que je pense que impact yi c'est à tous les niveaux. Mhm. donc bu fekkoon ne am nga benn message boo leen di jàllale pour ñu wax nan la nan lañ la mën a ñëwee en aide lan lay doon. waaw bon je pense que comme ni nga ko waxee gars yi tout le monde est impacté. Mhm. ñun ñëpp on est impacté donc li ma li may wax rek mooy. s'il y moyen de de nous aider. état bi bu ñu ko mënee nañ ko def. déjà ñu wàcc ba ci suuf. wàcc à travers les mairies. xam nga parce que état bi xam nga décentralisation lañ wax quoi. dañu wàcc à travers mairie yi je sais pas mairie mairie gars yi xam ñan ñooy artistes yu nekk ci communes yi ñu jàppale leen. je sais pas quoi mais s'ils le peuvent quoi. ñu jàppale ñu parce que les gens en ont besoin parce que boo nekkee artiste aussi. tu tu as besoin que li ngay aar bi ngay yëngu tamit mu am revenu. sa aar di la fay quoi di la fay. te malheureusement ici au Sénégal moom. Euh, mooy loolu quoi. Ah, fi moom pour pour nga gis euh, aar bu fay artiste am en plein temps nii c'est c'est c'est c'est difficile quoi c'est difficile de dafa métti de. fii moom bàyyi surtout musique. mais nan nga nan nga jàngatee actualité yi am ci Covid 19 bi yëpp par rapport ak game bi et tout lan benn jàngat nga ci am de manière globale. bon Covid bi ak game bi bon j'ai vu que xam Euh, rappeurs yi impliqué nañ ah. les rappeurs se sont parce que gis nañ rappeurs yu bëri def ay clip vidéo di sensibiliser. Mm-hmm. yow euh, def nga sound. waaw man am na bon benn sound bu ma bokk quoi. ah sound nu. Euh, waa 7 7 8 10. waaw 7 8 10 record. effectivement bu ma bokk moom ne. ñaari sound sax am na beneen bu ma bokk ak yeneen bureau Ruku record moo ko produire. Mm-hmm. donc xam comme comme pour dire donc rappeurs yi ñi ngi investir ci ci loolu ñi ngi def ay propagande dina gars ñu raxasu am na ay rappeurs yoo am ne ñi ngi si mbedd bi aussi wàcc ci marché yi. Mhm. gis naa ko ay rappeurs voilà wàcc ci marché yi na nit ñi dañuy sol masque affaire yooyu donc les rappeurs son carrément impliqués et puis il y a yoo xam ne ñu ngi koy def aussi gis nañ démb démb dib dund gis. xam nga loolu tamit il faut le dire quoi. effectivement c'est quelque chose à saluer. bu mu def pour xam nga waa Grand Yoff. waay offrir des sacs xam c'est important. comme Dip Doundou Guiss nga xam te ni ñu ngi doon ñu ngi liggéey ak ay opérateurs yu mag ñu def ay actions yoo xam te ni c'est pour aider leur commune. c'est nice quoi donc xam nga nice donc man gis naa gars yi ñu ngi siy yëngu yenn artistes yi ku nekk ak ci nu mu ko mënee. Mhm. gis naa yenn rappeurs yi moom vraiment rappeurs yëpp sax laay wax ñu ngi ciy impliqué wu quoi. d'accord ci affaire xeex bi quoi. Euh, euh, dama bëgg nga sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan. ci ci ci émission bi. par rapport ak Covid 19 bi. sensibiliser leen nga wax leen loo xamante ni mën nañ ko jëfee ci ci contexte bi ñu nekkee nii. waaw waaw c'est vrai instant yi moom c'est c'est le cadre. idéal actuellement pour parler xam nga par rapport ak Covid bi. li ma mën a wax daal mooy na sénégalais bu nekk xam nga euh, jël matuwaayam. Mhm. na sénégalais bu nekk xam ni feebar yow yaa koy moytul sa bopp quoi du nguur. Mhm. donc xam nga c'est à toi de prendre tes propres précautions nga aar sa bopp d'abord aar. sa njaboot aar sa entourage quoi. Mhm. donc ku nekk xam responsabilité te wax nañ ni feebar bi. naka nga koy. Euh, euh, naka nga koy moytoo nga koy moytoo quoi. ku mhm. nekk xam na ko xam. Mhm. donc ñuy takk masque yi di raxas suñuy loxo. Mhm. mu set. et cetera donc détail yooyu noonu affaire bi man pour man c'est un problème d'abord personnel quoi. donc si chacun si mais donc incha allah affaire bi na fi jógee parce que chinois yi noonu lañu def ba mu jógee seen dëkk ah. discipline. discipline discipline discipline lañ wane ba ba affaire ah, bi affaire bi jugee seen dëkk. donc ñun tam je pense que sénégalais bu nekk war na am conscience boobu noonu. Mm-hmm. ñu xam ni discipline bi weesuwul takk masque raxas sa loxo loolu méttiwul ah. Mm-hmm. am distanciation boobu noonu loolu la ñu laaj. Mm-hmm. ah je pense que man pour man méttiwul nañ ko ñefe ñu koy jëfee ak koor gi ñu ñaan yàlla delloo suñu xel ci yàlla aussi. c'est important aspect boobu noonu tamit quoi. ñaan suñu borom xam yàlla xam nga yërëm ñu te di dindi fi feebar bi aussi quoi. parce que lépp ci volonté am lay amee ci borom thème la parce que c'est une dimension très importante aussi quoi. bu ñu war a bàyyi xel spirituelle bi parce que des am na yenn yuy am yoo xamante ne nit mënu ko expliquer. da ngay dellu ci kële xamal ne ko mais. da ngay dellu ci ki la sàkk nga toppoo parce que boo demee ba xamatoo foo jëm. waaw delluwaat fa nga jóge quoi mooy back to de back to the roots. <laughs> back to the roots <laughs> lépp ci contexte album bi quoi. lépp lépp noonu la quoi. yes effectivement mm-hmm. mais bon am naa am naa beneen question balaa ñuy balaa ñuy tàggatoo mooy. Euh, mm-hmm. aujourd'hui ci ci contexte bi fi ñu toll nii. Mm-hmm. dañu war a nekk ci benn dynamique de fédération. tey en tant que artiste bu fekkee am nga message booy jox les autres artistes yi nga xamante ni ñoom ñooy ñu si tam envie ñëw ci émission bi sax ñëw ci plateau bi wax ci. lan nga leen di conseiller pour ñu mën a fédérer suñu ay forces pour mën a combattre feebar bi mu jógee fii. yeah donc bon je pense que instant yi moom amul buñ ñu nekkee di xool ku nekk sa propre intérêt pour ay affaire xaalis. Mhm. souvent Sénégal fii loolu mooy problème yaa affaire poche la xaalis wala affaire yooyu noonu. Mhm. mais je pense que tey fu ñu toll nii. Mhm. corona amul. bambara séeréer joolaa tukulóor amul chrétien musulman amul dara amul mbalaxmaan rappeur c'est un problème boo xamante ne communautaire. xam nga national quoi donc na ku nekk tegee say égo wala say affaire de côté. ñu bokk lépp. xam ni que combat bi nii. pour ñun ñëpp la quoi. parce bu feebar bi naroon yóbbu Sénégal yëpp dañu naan sénégalais yëpp dee nañ. te boobaa ñun ñooy perte. Mhm. est-ce comprendre donc je pense que lu combat nañu boole. Mhm. te booloo bi nekkul leneen lu ku nekk nga jël sa. sa ego te jël sa ego tegee ko nële. Mhm. xam nga jël sa yenn affaires yi tegee ko nële xam ni bu ñu wootee pour defar nañu ñëw ñu bokk ñu defar. Mhm. bokk ci combat bi communiquer. Mhm. wàcc ci terrain bi ku nekk ni nga ko mënee nga def ko. ku am as tuut lu mu mën a jàppalee néew di doole bi. mu def ko parce que jamono moom métti. ñëpp mënatuñu dem. xëy dem liggéey. Mhm. parce que dañ yenn liggéey dañ koo tëj wala yeneen dafa am nu mu fa demee. ñi ko mën. ñu mhm. jaafale ñi nga xamante ne ay néew di doole lañ. Mhm. xam nga yàlla dina leen ko fay quoi. ci jamono jii xam nga. noonu la quoi ñu boole suñuy doole boole suñuy lépp bàyyi yenn yi ñu nekkoon xam nga et puis ça ira quoi man pour man noonu la quoi. d'accord dama am euh, benn rubrique bu bees. bon freestyle la. nga may ma quelques bars. mais man maay tànn ci son bi muy doon ci al ci mixem bi. ma bëgg nga may ma quelque bar ci Ginzel te cool quoi. may ko gars yi ok ok Ginzel te cool. <laughs> yeah check. yow for real nigga na nga Ginz cool. lu debs ci biir du sedd Ginz buur. ni may wésa du ma seen suuf. boobee suuray technique ko lekk leen muus. man bokk maak seeni wéeg niggas bu bit bi dawul loo char duñu rap lu deep. folk haters you the hate. I'm Flus Ludups, that's what it is. <laughs> that's what it is. Eh, ban message ngay joxe ak aussi tamit ce mot de la fin ak ni nga gisee Dakar Net ak émission eh, plateau spécial bi hip hop solidarité coronavirus. waaw nice ah nice nice plateau bi nice na et puis question yi c'est pertinent. Mhm. et di la remercier ci invitation bi. di big up aussi sa technicien bi. Mhm. Euh, donc xam nga nice quoi di big up seen euh, gars yi seetaan yëpp quoi. Mhm. donc nice na émission bi nice na et puis permet par rapport ak contexte bi fu mu toll instant yi nii ku nekk kuy kuy mën a ñëw wax sa xalaat. Mhm. et puis xam nga am lenn lool doole ci ci avancement wu. Covid bi avancement au Sénégal bi quoi donc je pense que c' ça te di fàttali gars yi sama projet sama mixtape mi ngi ci marché bi. dem leen wuti ko. back to the roots na ñëpp dem wuti back to the roots. bu fekkee ne amoo leen euh, numéro Flush Do Dep man ngeen ma woo ci sama numéro 77. 839 98 92 ma mettre leen en rapport ak moom. et en même temps aussi tamit moo ngi moo ngi ci communication bi toujours donc dama bëgg ngeen di continuer di suivre. Euh, Flouze Loodab ban message nga leen di jox pour pour pour album bi de manière globale ak fu ñu ko mën a amee foo xamante ni mën na bañ a nekk man et tout quoi. waaw donc gars affaire bi moom c'est disponible après peut-être dinañ leen jox lien yi ngeen bindu numéro yi nga xam ne mën nga koo am. Euh, c'est disponible sur le marché en support euh, physique am na clé USB. Mm-hmm. am na CD. donc yooyu mooy support physique yi mais aussi en téléchargement sur les réseaux kii quoi internet avec digital bi quoi digital bi mm-hmm. donc euh, donc gars yi mun nañ ko amee foofu noonu quoi pour le moment d'accord waaw merci beaucoup c'était Flouze Do Dep mu nekk waay boo xamante ni dafa am talent un artiste boo xamante ni kenn dootul notable li mu liggéey ci euh, hip hop Galsen de par Daj Dëpp Connect mais aussi tamit de par sa carrière solo donc c' était le hip hop solidarité Covid 19 ñoo ngi leen di jox dig daje ci temps yi di ñëw incha allah rabbi ak beneen daanaan